Sunugal 24 point net l'information bi dañu gis ne sa adversaire dem na mais yow bougé wu comme d'habitude rek yaa ngi ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ak suñu coach si gii gii moom xam naa ne alhamdulilah sant yàlla baax a baax mu ngi ñuy liggéey loo xam mu ngi ñuy liggéey loo xamante ne suñu xel day na dal ñu ngi koy sant di ko gërëm woon na naan yow yaa mën a sauver l'honneur de Guédiawaye parce que dugg na fa duggaat fa dugg na fa duggaat fa. ne ni mu fa duggee woon noonu la fay duggaatee loolu la wax. xam nga lépp loo xamante ne loo gis rek. yàlla da koy tuddal ci biir géej waaye ne war na fa am lii wax naa ko sànq dafa dugg am lu mu fa war a am mais yàlla na ko fi yàlla yemale te yàlla ko fi yemale ci kattanam yàlla moo am moo mën te yàlla ñu yàlla may ndam bés boobu noonu incha allah. à sa juste sunugal 24 point